te ñu ngalañ bu leen xool fi may joxoon nag dégg nga. waaw na mel ni rek dañuy fii la fii. tabax bii ngay gis. lu fi ne ci feer doyalu ma. waaw ah, feeraay da bëgg lu yomb yow bu njëkk ba dil nii nga ko defoon jaar suñ kaw jàll mbala feñu te loolu tey du mën a yombee noonu. ndax parce feer dafa yokk. loolu amatul. te lii génn ma ci lan. li génnuma ci maa ah, leen ko. leen lu leer la ñuy séq ak yow de. ay dégg est-ce am na. ay fer waaye yow itam lii mooy sama liggéey. am na fer waaw bu leen joxoon nan la ni li ngeen xaw a kii noonu rek. léegi yow yu seet maa nga ca koñ ba fee ne dégg waaw yow kay am am man liggéey leen ak seenum xel. léegi xam nga moom moo di jege. yaa ngi dégg mooy gaaw maa ngi ci biir dégg façon la lii lii riibe la liggéey boo liggéey yónnee nee ndiwaatal la lii riibe la lii lagg leen gaaw lagg leen abi defal sa poste dem dem leen rek danaa fi jaar gaaw leen kii dañ koy dogat dogat dañ koy daggat kii moom dañ koy def ay dogat dogat lii gaaw leen nu daggate jugal boobu foto jugal. lan la laa toog boobu foto. kay yoon toog kay. waay dafa waay dafa naaj. yow njëkk yaay sàcc la booy. waay kan laa sàcc la. boobu foto. Eh, xoolal la sama kuréel. ñëw kay. brigade bi génnal génnal ni doo ko fekk ci teraanga di ko yàq ni dama lay duma de dama lay door de. ni ñam la. bu tey ba brigade doo ko commissaire génn. booy jëlaat leen weñ par weñ booy gàddu. waay nit noo koy fekk ci booy bu di ko toog. da nga génn wala doo génn. Pape moom moo weñ. gàddu leen ci booy booy. gàddu lañ bi. waaye moom lañ. waaw da nga gàddu lañ wala doo gàddu. paa bi laax moom. yaa ngi may gàddu. da nga gàddu lañ gàddul. waaye mag doo ko fekk ci bërëb nii di ko toroxal. jiitu aja dox dem. xoolal leen ma palaas waaye dafa ndax kilifa. da nga dem wala doo dem doo dem. waaye bàyyi ma ma dox nii ñëwal. ah eh, booy. door naa ba ñu ci bunt bi da dugg ci biir xaar ma ñëw. waaw mais yow ki nga jàpp métti na. doo dem. mën nañoo dem ah. ci biir booy laaj eh, ci biir ci biir allez ci biir waaye waaw dégg nga. waaw mais toog leen dana ko toog leen nag. toog naa leen. allez toogal ñu. commissaire. commissaire pas ferraille ni ah. sàcc bu mag bu nga ndekete xoolal attention de place am bi yor vidéo beeg yor ndekete booy yu ndaw yi xoolal kuy war ci sàcc weñ ci dëkk bi muy feere te attention xoolal mooy sàcc la booy ci dëkk. te même raay bi nga xam ni semaine de feere ko moom raay bi ci boppam. mooy yabal booy yi jox leen ay clé pour ñuy dem di desserrer boulon yi di wekk raa yi di ñëw di ko jaay. man yow. tey salaam yi wax na dëgg waaye kii kii kii kii daf maa tooroo xam. sama place la ma fekk ah jàpp ma ba ma xam ma nappaa jama koñ ba jaratuma fa dara. loolu la am nga temps attention am nga temps dama laa waroon a jàpp ca diggu marché ba ci sa diggu place bu li laaw li ma ko mel noonu daal moom fonto sàcc nga laa la wax. te commissaire xoolal maa teg sa booy teg fee mu wàññi xaalis joole booy na xaalis. loolu amul. joxuñu ñu xaalis de. eh, eh booy na xaalis bi. joxuñu ñu xaalis de. eh ana xaalis bi laa wax. dama a jox dara. eh teg sa lami yow. doot nopp yow. ñu fantoo. tegal xaalis ànd ak ci xaalis. te doo teg sa lami ne ne poor. eh lii rek la. loolu la ñu jox. commissaire xaalis bi la. huit mille la. léegi ma teeku. non bàyyi ma garde mooy pare. commissaire bi man maa yor enquête. Eh, yooyu tam benn enquête kii toog te bàyyi xaalis bi. ceeb lu sérieux bu ma ma maa yor enquête bi. boo yoree enquête bi da ngay enquête waaye foofu bari commissaire koy téye. nga ñiy soxla leen waruma leen man yow mi laa man yow kii mën na maa toroxal fekk mu koñ ba jaratuma fa dara kooku sama yoon nekku ci. eh juuleen yow yow ñaata nga am. yow ñaata nga am 14 ans. regardez-moi ça ndaw nga jàpp leen di leen di leen jaayloo di leen dugaloo ci mbirum sàcc te ju dooguñu bul gëm wax yi dee sa làmmiñ laa tuddul gëm eh booy ci biti boo liggéey boo leen bàyyee bàyyi ay sàcc de waaw yow man yow yaay bi waay comme ça léegi bi loo ci waa ji du sama ndigal ngay doxal waa xaalis bi garder naa ko c'est tout du ma delloo du ma delloo sama place ma liggéey da ngaa bëgg dellu sa place da nga dellu sa place léegi. yow méritu tawal méritu woo sax place. si soxo. oui. yóbbu ko ci biir. waaye di bàyyi sama place ba eh, place ba ndax bopp fonte waaye. bon madame Diouf. waaye bu ma def noonu ay biir da ngaa yooyu. ma def noonu waaye ñu jëmee. place ba bàyyi ma daal tëj ba ñu kaso rek yàlla leen dee. xaalis bi xam nga daa du may du ko jox enquête waaw. dafa amoon benn booy boo a signalé gars yi. waaw gars yi sàcc feer yeeg weñ. Hmm. booy boobu a signalé moo ko njëkk a wax. waaw léegi ma ne ko bu enquête bi leeree. Hmm. bu ma leen jàppee dinaa la may mille. na ko jox mille. waaw léegi am benn paa boo xam ne xam nga paa bi foofu lay pointé. Hmm. place am ci wetu mur bi booy yi Mm. léegi paa bi moom bi ma ko signalé bu yàgg la ma ko signalé woon de ko mm. a jox 2000. bu ci bi leere. d'accord muy 3000 léegi après mm-hmm. ah. ma ko signalé sax mm-hmm. jox 1000. 1000 muy 4000 waaw ndax mérite xam nga keroog doon nga ma wax naan ma brigadier. Mm. man la waaw nga ne ma. sa dàll bi dafa dajj ko demal nga defar ma ko. waaw lu ma jaaree ca uude ba defar lu dàll bi. Hmm. uude bi dama huit cent ngay fay téeméer muy ngi sa poos nga dem def sa xaalis. foofu laa ko yaakaaroon. fii bu dee fii rek du faju de. allez tey nu dem sa liggéey allez. tey nag def nga liggéey bu am solo. bu am solo lu bu am solo bu man jar naa bàyyi wala mun leen naa bàyyi. ma ni yaa fi def lu jar ñu wax ah. qu'est-ce que c'est que yaa. place wala wala dellu place. comme tey xaalis bi. waaye da laa defee enquête am amay pièces fois conviction am huit mille dama jël quatre mille. père mën ngaa dellu si place wala wala dellu place. allez ci liggéey bi. man xaalis bi li ma ci doyen xanaa xaalis nit la. doyen xanaa moom moom moom moom. ah damaa yaakaar daal yàq ci ma xob gi leen rek. man daal di seet daal.